حاجة في القلب كل شجو دفيني لميت لديوار مملا أسكنو كاولاخ ندانغان يوو ديدك مولانا شيخ الإسلام ميغي خاوي فليتي كوان بيان كارتي بو نيك بير كاولخ موي محمد اك بايام بي دي عبد العزيز محمد نك اب امريكان لا بايام تامي من اب امريكان لا ndax ma nga jóge woon Amérique ñëw jébbali ci ki nga xam ni mooy imaam assan Cissé imaam leen yor moo leen dugal ci diine lislaam nee nañ bëgguñu xaalis bëgguñu lenn lu dul am yàlla ak Mawlana Cheikh al Islam ñooñu bi ñu nekkee kawlax mën nañ ne ay at yu yàgg la kii di Mouhamed fa la nekkoon di jàng alxuraanul karim ay samba booy tolli ci juróom benn nit ñoo leen fëgg ki ngànnaay papa ji nee na ko. Mouhamed toogal ma dem jàmmaarloo ak ñoom Mouhamed ne ko déedéet génn di xeex ak ñi nga xam ne ñooy Samba yi ñu jàpp moom Mouhamed ak baayam bii di Abdoul Aziz dóor leen a dóor a dóor dóor ba ñu perte deret ju bari mu ngi amee boru trois heures du matin jàpp 4 heures ci lañu wootee wallu ñu jël kii di papa jeeg doom ji yóbbu leen ci hôpitalu Kaolack ba waaye la ca gën a yéeme diggante 4 heures du matin. ba 11h ci suba médecin yi nanguwuñ leen a laal ci lañ leen daal leen di dem kalaameek waa takk der yi ci lañ ñëwee ñoom naka lañ yegg si ci hôpital yi rek médecin yi commencé daw daal leen commencé yëkkati ku nekkuñu daal ne dañuy faj loolu mooy médecin après mort ay minutes lañ ca teg mën naa ni kii di Mohamed daal di ñàkk bakkanam samba booy yooyu nag jot nañ leen a teg loxo ñetti nit lañ ci jàppagum ñuy ñaan yàlla suñu borom mu jéggal Mouhamed mi ay bakkaaram te baayam bii di Abdou Aziz yàlla fëgg boppam waaye ñi ngi ñaan tamit ci barki Maulana Cheikh al Islam Samba boo yi def yoolu ñeneen ña ci des nañ leen teg loxo waaye li ci gën a yéeme ña nga cay tuumaal ay doomi aadama yu yéewe foofu ca kaw la ndax nee nañ dañ leen ko sant lañ ca jot yóbbu nag ci alal xaw na takk lool ci biir kër gi ñuy ñaan yàlla na fi yem. monsieur Macky Sall ñi ngi lay ñaan nga daal di jóg ci lii nu mu gën a gaawee ndax léegi sécurité amatul ci benn kër dundal lu neex yaa ngi ci sa amal lu neex bés dina ñëw nga tàggoo moom soppal ku la neex bés dina ñëw nga tàggoo benn mu dee bàyyi fa wala nga dee bàyyi مرابا بالشيخ التجان الأمينا بالقدوم للكون فيه شفاء